mu may sasal li ma leen wax moo leen a xari. te français la këram du la olof. man maa gis vidéo bi xaj bi tëb mu kott ko nii. waaw. naan ko ninu na ko ninu bii la. waaw. dem ci géej gi def ay tugg si waat ci kër yaa ko madame. non bu ma ko waxati. bul ma ko waxati. du ma ab tubaab. ah bul ma ko am. tey yaa ngi dëkk ak sama njaboot. man ak sama sët man ak samay sët ak samay soxna. amul benn benn ci Maya. Hmm. demal ci Maya. dëkku leen ak i Maya on t'a bien défendu. dëkku leen ak i Maya. parce que je disais que ay njàmbur njàmbur. ñu ngi jégalu ci bruit bi il fallait que ñu kii ko. donc je disais que nit da ngay xool li la arrangé. comme tu l'as si bien dit da ngeen a sëy fas yéene am ay njaboot nga war a dox jox la bon exemple ak sa famille jox leen éducation bu baax su ma nee da ngay xool li la arrangé li la arrangé mën na doon nga dem say kër famille par exemple man ma Maya maa ngi liggéey sama jëkkër mi ngi liggéey amuñu peut-être moyen yoo xam ne am nañ war nañoo war a mën ay nunu quoi que ce soit nga dem dëkk kër famille am nga goro gu baax goo xam ne soo demee liggéeyi day jël sa tam uuf ko gën ko bëgg sax doomam am nga njëkkee yoo xam ne heure sangu xale ba su jotee danañ ko sang heure lekk danañ ko danañ jox danañ ko jox mu lekk féetewoo seen place mais soo gisee nit ñi di bañ kër famille yëpp c'est parce que am na lu tax nañ ko waxtaan nañ ko waxtaanee tëddee li tax ñu ne bëgguma dem sëyi kër famille parce que soo fa demee ñaawteef yi fa nekk doy na waa papa on va on va le dire. Mm-hmm. parfois famille boo gaa wax nga ko sànq su problème amee. ñu teg mag yi ñu lijjanti parfois famille boobu mooy créer problème bi. parce que mm-hmm. da ngay sëy kër. à la place ñu ñu ñu ñu accueillir la jàppee la ñi ci kër gi nga bokk mais da ngay ñëw ñu def la noon yow jékki say goo ñu def la noonu jëla la xoolee benn bët bi dangay gis koo xam ne mi ngi nekk di say kër famille amul benn sutura ci boppam soo génnee sa nekk li ñu njëkk xool ba xam si da ngaa triste ba xam si dangaa ngaa kontaan ji mhm. yërlu ci nopp yi ci di déglu di déglu xool ba xam si da ngeen doon xuloo démb mhm. pour que suñu génnee pas pour ñu régler ko ñu jàmb kenn ki effectivement te en général jigéen ñi sëy ci biir kër amoo fa avocat amoo fa défense ñun jigéen ñi sëy ci biir kër yi yaakaar nañ ni lépp lu ñu war a mën a jotee ak suñu borom kër ñun ñoo tooñ nga génn sa goro fasal la kanam say njëkke di la gaaruwaale sa njëkke naan lu tax lu tax fóotaloo ma mais pourquoi may fóotal sama njëkke yow ngay yow ngay xale. Mm. man may xale. Mm-hmm. yow nga amum loxo. Mm-hmm. man ma am loxo. Mm-hmm. yaw sa yére tilim sama yére tilim sa yéreem su til sa téere su tilimee lan moo la ko teree dem yow sama njëkkee dem fóotal sa bopp. léegi sa goro la. sa goro d'accord mën nga ko fóotal je suis tout à fait d'accord. parce que sa rakk joo xam ne amagul jabar amul. sama sama. rakk jëkkër non papa bu ma dugal ci ay. dama ne sa rakk jëkkër. jox ko bu ma bu ma dama ne sa rakk jëkkër joo xam ne mi ngi jàng amagul yoragul. nekk ci sa kër d'accord papa ma wut fóotkat ñu koy fóotal. papa ma wut fóotkat ma wut fóotkat ñu koy fóotal. du les temps ah, jàngal ko lu ñuy fóotee effectivement jigéen sax léegi ñu ngi yar seen doom yu góor yi. non bu góor balaa la wax. même jigéen ñi de ñun dañu yar suñu doom yu góor. dama ne incha allah rabbi ñu mënal seen bopp bopp ay affaire waaw bu nekk xamagul dara boo xam ne yaa xam ne muy xarak jëkkër ku nekk université dama ne nekkul université doo ko jàngal hygiène mi ngi def CM1 CM2 mais jàngal ko hygiène dama ne léegi bu nekk ndaw laa la wax ku nekk CM1 dina CM2 waaw waaw d'accord waaw waaw déglu déglu waaw CM1 CM2 doo ko fóotal ankay yaayam fóotal ko yow ñool dégg dégg tak yaay ni jaayam la ne yow yaay man maa jaay waaw mais on est on est s'il vous plaît s'il vous plaît nee na ma ne ko ni jaayam moom Benoît ma ne ko nijaayam yaag ndeyam yéen a bokk ndey baay wala yéen a bokk baay mu ne na dem fóoti waaw mooy dëgg ay ci ab jarbaat boo xam ne doon la ko dañ ko bàyyi mu continuer ah bu njëkk bi bu dee bu dee moo bu ma wax ñu dagg ma man je vais me perdre bu njëkk ma bëggoon wax sax dama ne bu njëkk ba jarbaat parce que on n'est pas là peut-être pour bu njëkk ba jarbaat mooy doon diaboliser on n'est pas là mais man mën naa taxawaay ni am naa couple yu bari yoo xam ne xam naa ni suñu dëkkoon ñoom ñaar kase mën nañu ju mën nañu sëy ba ilaa yomi diini hmm. parce que ku góor ki du am problème ku jigéen ki du am problème hmm. la plupart du temps ñi leen wër ñooy am problème ñi leen di wër ñoo leen di jaxase hmm. da ngay sëy kër famille nga xëy suba gàddu sa saak ni da ngay liggéeyi à la place ñu comprendre nga ah liggéey bi ngay def kat soo ci amee da ngay jàppale sa sa boroom kër ba mu lépp war a mën a yomb ci moom ñu ngi noonu ñu ngi naan dafa bëgg tubaab dafa bëgg yi def yëfu tubaab wala dafa bëgg a taxawaalu wala euh, ñu ni la sa ay bi kan moo la koy toggal man xam naa ku jigéen koo xam ni sëyam yàqu na malheureusement parce que da doon liggéey jëkkëram nangu ci nangu ko ci loolu su xëyee suba war a dem goro goro bi ne ko kan mooy togg añ bi mënu ko may man indi naa jànq teg naa ko mënu ko man du lekk lekku jànq man sama goro moo may toggal ñuy dundee noonu muy am ay problème di am ay problème xëccoo am ci ba ku góor ki il a préféré sa ranger à ci ci côté famille am ci côté yaayam parce que danaan man kat bëgguma perdre sama yaay bëgguma perdre sama ay sœur bàyyil ma sacrifier kan sama jabar àq la papa donc am na si famille yoo xam ne da ngay ñëw sëy si ci biir kër gi déjà ñu ni la non yow yaay fóot Euh, xar yi yow yaa leen di jox ñu ñu lekk xaaral rek dafa ndànk papa maa ngi ñëw bu ma dagg bu ma dagg bu ma dagg si te plaît. yow yaa yow yaay fóot d'accord mais yow l'essentiel na sa ay yére set. quitte à ce ma dem jël fóotkat fay ko man ci sama doole mu fóotal la c'est la même chose it's the same par exemple ñu ni la ci kat yow yaa war a togg añ. ak reer nga xam ne kër gi soo fi nekkee am na nu muy demee togg entre togg añ beeg reer bi da ngay nekk ci waañ bi de huit heures jusqu'à dix-neuf yaa ngi ci waañ bi soo demee wut kenn ku ne ni ku la ku la jàppale nga wut jànq wala dara mu lay jàppale ci kër gi ñu ne noonu dafa bëgg lu yomb yéen da ngeen a yaakaar ni sëy égal souffrir da ngeen a yaakaar ni sëy égal salté da ngeen a yaakaar ni sëy égal tant que defuñu la ay métit tant que ñu la ay métit ba àdduna bi yépp wax ni ah kii kat muñ na que foofu ngay war a mën a jure ay doom yu baax non moi je suis pas d'accord sëy mën na neex papa appartement yi ngay gis am na si ñoo xam ne dañuy weñ seen seen loxo par exemple seen loxo jëkkër mhm. par exemple sa jëkkër waroon la jox benn somme nga xam ne sa yaay aussi laaj na la ko soxna si lu muy def bul ma ko jox demal nga jox ko sa yaay parce que ñu ngi dund en appartement soo ma ko joxee tey jii danaan c'est à cause de moi c'est-à-dire jigéen gu baax yi nga xam ne ñi ngi nekk ci biir sëy yi ngi nekk ci biir appartement yi ngi sacrifier seen bopp sa yaay da lay laaj cent mille francs par mhm. exemple tu n'as pas cent mille francs sa jabar boo ko nattam ba mu mat cinq cent mille dem jënd ci benn bijou en or pour sagal boppam mhm. sa jëkkër ne la non sooy ma cent mille francs tey jii li nga takk ni su ko gisee danaan daf maa bàyyi c'est-à-dire que ñun on se sacrifie alors que or mhm. wax la loolu bul su dem sama kër yaay waaye bul takk or ba c'est parce que sa yaay am na doomam du jigéen wala boog yow am nga rakk ju góor. joo xam ne mi ngi tëddaale opp joo xam ne. wala feebar fo boo xam ne. dégg mu war koo faj. waa moom faju ko. yow nga dem jël loolu dem burum lu ko jëndee ko or. léegi lan nga bëgg ñu jox la ko nga dem fajee ko. ah sarak. non non non je pas dit ça bu jigéen ki moo bokk na tam papa tu n'as pas compris. léegi ordonnance juróomi junni daal di koy téye nga dem jënd or 500000. Ah, ci alalu kan su fekkee da non mais ci alalu kan le partage. moi j'ai 500000 sama ay natt. mais partage 1000 francs 2000 ba mu sama or xam ne tey ji en cas de wuyaay bi koy dem jaay sax. faj ci sama ay soxla nga ni or boobu par exemple. au nom de la société dama ko takk parce que damay bañ mu bu doon yaa ma bu doon yaa ma jox. dama lay laaj partage. cest je prends mes 500000 je prends mes 500000 je le donne à ak sama rakku jëkkër bi mu dem. man te sa yaay su feebaree. sa sa borom kër lay ko dem ma jël ko ma dem ma jaay ko fay fayal la sa gis naa ñu bari ñoo xam ne faj nañu seenu goro. gis naa ko mais je suis tout à fait seen seenu goro ay góor yoo xam ne seen yaayu jëkkër wala seen baayu jëkkër wala seen dakku jëkkër ñu dugal ci moom ay millions. am na d'accord yaa yow nga ne yow sa téeméeri junni yooyu uh-huh. doo ko dugal ci rakkam ceenu or ga nga jënd yaa yey nëbbu ceen yaa ndax soo demee daal di fekk mm-hmm. sa njëkk jigéen amul mbub mu mu sol yor juróomi doom te amatu dàll lekkut naanut. tëdd am goiat. wala feebar feebar metti soo fa takkee ceenu koor dina ne. d' accord lépp lu mu takk mi ngi jóge ci. jëkkëram sunu càmmiñ. d' accord après may ma may ma lu tax jekkul dama yow yaa ko war a bañ. yaa ne ah déedéet. ceenu koor gi kat du ma ko jël tasarak ji tëdd papa gis nga gis nga gis nga doon ko jënd ko faj. wala ordonnance bi ngeen ko jënd ko am déet waaw loolu nit na. man musuma wax waxi dof nga naa mën nitel. waaw mais soo ma bàyyi ma exprimé wu nan nañ mën a waxtaanee kon ma bàyyi la nga àggale nga wax ne man de su ma naree jëndal sama jabar seen mu takk ko ma koy ne nëbb ko yàlla na ma yàlla. naa la bàyyi nga wax ne sama xel. naa la bàyyi nga wax ne sama xel. yow yow su say pexe jubee su say pexe jubee doom dootul déggal ndey. su ma naree jëndal sama jabar cher. waaw ne ko làq ko. waaw yànd bu ma ko yàlla maye. nañu bàyyi nañu bàyyi Maya mu daane li ñëw ci yow. <laughs> Maya takkal moo bon. vas-y gis nga papa s'il te plaît rek soo ma daggee lu ma moo bu ma wax. dara dara nga tontu ma ci man à la fin je vais rien dire. ay leçons yu garaaw kon lii ma wax ak yow. li ma la yaay déglu ne may may papa di sewal ba naan. waaw sama dëkkee du may kii. waaw damay kii waaw waaw. di bës xool xoolal ma farul fenn moom. te yow nga jàng université di jàng ay leçon yoo xam ne yow droit nga juriste nga droit nga def université nga jaar di jàng ay article yoo xam ne da nga koy parcourir lii nga waxtaan léegi da nga ne fàtte nga c'est parce que dama laa dominer dama laa jëf non waaw ca dama ne keroog ba ma waxee moom waa Louga. ba ma taxaw ne ma ñoom yaayam ñoo loo kër. dëgg la dafut. oui ma papa na ma dara dalu waaw ma dara dara dara dalu ma. dara dalu da ngay dof dof lu. ay waay kañ laay kañ laay wax. <laughs> bismillah ay waay kañ laay wax. <laughs> papa nañ ko dégg may ko may une minute waaw léegi nañ ko may xoolal. nañ ko may une minute de silence. yaa ngi wax non sérieusement quoi papa. laisse-moi terminer donc je je disais soo <laughs> gisee. nit ñi par exemple damay dëkk en appartement. jàmm ak salaam moo tax ak bëgg sëy bu yàgg. moo tax ñu ne damay dëkk en appartement da nga ciy gis góor yoo xam ne tamit papa nañ ko waxante te dee bëgg lu yomb moo tax ñuy bëgg a resté en mode famille da nekk ci kër goo xam ne trois chambres sa rôle kër gi mët nañ cinquante ci biir kër gi yow am nga soxna am nga fa benn néeg am nga fa quatre doom wala trois ñu ngi tëdd ci suuf te xale dafay gis xale dafay commencé di màgg toi homme tu as la possibilité financièrement dem jël appartement boo xam ne bu yam pour nga mën fa dëkk ak sa soxna. ak <laughs> say njaboot goo xam ne dinañ gën a nekk à l'aise mais toi tu le fais pas tu dis <laughs> ay doom di fanaan ci suuf yaa ngi denc ay millions sa biir sa biir a a dëkk en famille xaaral danga war a dëkk en a dëkk en famille xale boobu noonu par exemple guddi gi yéen ku leen a dëkk yóbbu leen yi ko yow nank rek ñun ñun ci région lañ dëkk xam nañ la ci région dama ne ku leen bëggoon takk waaw man façon sëy bi ngeen di wax. waaw sànq ba tey. loolu mooy lan yéen sëyu Sénégal. wala mais non mais non mais non est-ce duggee ci appartement yi. la mhm. plupart du temps bëgg seen sëy yàgg. bëgg jàmm bëgg salaam parce que da ngay dem ci biir euh, kër famille yi. déjà ñu def la noonu. sa sëy la ñuy yëngal. sa sëy la ñuy jaxase ba nga xam ne yow amoo fa sax benn liberté da ngay xëy suba bëgg defar benn petit nen par exemple defar benn benn petit nen bégal sa borom kër parce que xam nga ni tu n'as pas la possibilité peut-être ak famille yëpp defal ñëpp nen nga jël sa benn nen bëgg ko defal sa borom kër il suffit que nga jox ko ko sandwichal ko ñu ne da ngaa siis pourtant siisoo de da ngaa nekk di sëy papa da ngaa nekk di sëy da ngaa bëgg sa jëkkër ndekkeelu neex moo tax nga jënd sa nen boobu nga ne la. sëy bi jëkkër rek ko benn nan nga am. waaw léegi sa yaay léegi sa yaay jëkkër. waaw nga am sa benn nan mais mais man man nga xam ne. Ah, sëy bi jëkkër rek waaw léegi léegi ah, nekk sa appartement bi reyante ba jamante. kan mooy raayante ba jàmmante. Ah, amul Maya merci beaucoup merci papa. ah amul mi ngi tourné daal ngeen wéet ci appartement bi jàmmante. ma nga ca Mbalou ah, amul. Euh, papa léegi dañuy dem ci benn le temps nga noppal ah, souffle. papa man lay bañ ma wax yow man ngay bañ ma wax yow man ngay bañ ma wax